mais Mamadou Awa ñoom dañuy faral di wax loolu mais la décision n'est pas encore exécutoire parce que y a recours bi nga xam ne avocat état yi yow def naa fekk yow émission wax naa la ko fii xam nga li ñu xam le recours n'est pas suspensif non loolu la ñuy wax mais aussi dañu li ñu war a xam ne l'administration aussi a ses règles de fonctionnement tey y a la procédure du judiciaire qui est diffé différente de la dama lay jox benn exemple Mamadou Awa maa ngi yow tey ñu doon xëccoo benn dem en première instance yow nga gañe ma Euh, est-ce que day tax le conservateur jël terrain bi def ko ci def ko ci sutur bu fekkee da nga maa ma daw def foofu def recours jël recours bi yóbbul ko conservateur bi jusqu'à présent du ko mën a gumité. est-ce que bokk na. non parce que pour ce cas précis la ñu wax ne mais moom laa lay wax. mais bu dee ñaar ñu am problème xëy justice. il faut ñu xaar affaire épuisé wu. mais mais mais c'est la même chose c'est c'est l'État et un euh, euh, tuuti un parti c'est la même chose. Mm-hmm. c'est mais dama la bëgg wax ne la procédure administrative jii nii bu fekkoon Ousmane Sonko dañ ko dugalaat ci liste mu dem cour suprême rejeté ko dañ koy génnewaat. donc va et boobu. procédure waaw procédure administrative bi du doxee noonu. tey nii mooy comme li ma wax bu ñu leen xëccoo dañuy bàyyi ba en dernier ressort. mais ce que euh, xel nangu na ko mais c'est pas ce que la DGE e, ñoom ce mooy euh, DAF moo war a dugalaat Ousmane Sonko ci liste yi ñoom c'est c'est bu ñu amee notification bi rek après ñu xam ne mi ngi ci fichier bi ñoom jox c'est un c'est un prétexte bu ñu joxe mais actuellement. Ousmane Sonko mënatuñ ko dugalaat ci biir liste yi tant que là le ne s'est pas prononcé. Mhm. justice noonu lay doxee. bu ko defee nag là la décision ne sera plus plus.